lu leer nañ ñi lay doon bëgg na fépp fu nekk itam walla lépp loo xam ne yéene ma wala bëgg-bëgg ma fa ci nekk mu doon loo xam ne day leer ñépp moo tax mu yéene ma kàddu yi may bëgg a wax kàddu yi ñetti wet rek ci lay jëm ba ci jiito mooy màggal Tuubaa gi mi ngi jub si ci biir. jubsi gi nag xam ngeen ni mu baaxoo amee ci jiw si réew mi yàlla def dana dogal at mu jot bu màggal gi ñëw ñu ñëw siyaare si sëriñ bi ànd ak moom si màggal gi xool si toll ba xam li def nañ ko wala ji yàlla def ni mu koy defee at jot balaa ñëw dana woote wax ma ko sëriñ bi na ko sëriñ bi tànnal bis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 جوني الشيخ عبد الله بكري مصطفي ام اك ماغ توبا جوبسي ام ني بغ ديف اي اورغانيزاسيون دي واخ ري دني بغ يوخو بريستان عبد الجوب في نون بوكو شيخ شيخ عبد الله مكي نيغي ديجا جيل اي ديسيون يور واخنا كيب كوكو يوخو دا نغا خاو يوخو كو مان يوخو ناخ سما غنا كون لور لي شيخ محمود منتخا فدلي كون لولو سيرين بي نين مي كوي خمال ييب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 ak mboolem kër kilifa yi ak kër Cheikh Seck ña xam ne war nañ caa bokk ñu mu dugal leen ci biir dana xam ne mu koy defee waaye loolu na leer ñëpp ñu xam ne dara luñ ci soppi niw ca kon sëriñ bi nee na lool itam mi ngi koy leeral na ko ñëpp xamee noonu mu de beneen boo xam ne neewoon na naa ko fàttali nee dëkk bi daa am war may boppam am na luy xewee du fi bëgg am nag woo xam ne daw fi am mooy ay nit yu taxaw fee di manifester